الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا amma baad ibadallah mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi yeyoo ñu koy sant fu ñu mën a toll ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a ñàkk ak lu ñu mën a nekke ñi ngi seede ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu suñu yeneen ci yàlla muhammad la yónni woon ci ñun mu jàngal ñu naka la ñu koy jaamoo ñi ngi leen di dénk ngeen ragal ko ñun ñépp moo ñu bind jëlee ñu ci benn bakkan bind ca soxnaam sa tasaari ñu ci kaw suuf ñuy ay góor ñu bari ak jigéen ñu bari man ragal yàlla mi nga xam ne ci turam la ñuy àndi ci turam la ñuy laajante te ñu xam ne fu ñu mën a nekk suñu borom yàlla mi ngi ñuy fuglu di ñuy seetaan donte ne mbokk suñu xutba tey mi ngi jëm ci kaddu goo xam ne suñu borom baamu na ko ci téere bi juróomi yoon mu ne nit ñi day màggal lu ñu yàlla dëgg-dëgg nam yeyoo ñu màggal ko ndax yow bokk nga ci ñi màggal yàlla nam yeyoo ñu màggal ko ay yéen bokk julit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo ñu bind moo ñu moom ki nga xam ne nii moom moo wàcce i xéewalam ci ñun la ca gën a màgg mooy téeréem bii nga xam ne da koo feesal ci ay waaraate ak xikma ngir xupp ci jaam yi xamal leen kan mooy seen boroom xamal leen ñoom ñooy ñan xamal leen it la nga xam ne mooy seen warugar ci kaw suuf ay yéen mbokku jullit suñu boroom moo bind ay mbindaa fënam di indi ay génération ci gannaaw génération ñun ñii daa am ñuñ fi wuutu woon balaa téeméeri ata ñun ñépp ñu dem yàlla indi ñeneen yàlla wàcce ay yonentam wàcce ay téeréem ngiree doomu aadama yi mën a xam lan moo tax ñuy dund ci kaw suuf mbokk doomu aadama yi dund ñu ci kaw suuf lu dul waroon a jaamu seen boroom jalla wa ala loolu rek a tax yàlla bind leen loolu nag mbokk jullit du mën a doon loo xam ne luy am la lu dul doomu aadama yi dañoo xam seen boroom la yàlla bëgg ñu xam ko ca moom xam nga ñi xam yàlla loolu da ngay tax ñu mën a màggal yàlla balam leen sant lu mu leen naqari naqari ñu def ci seen kéemtaral kàttan balam leen tere lu mu neex neex ñu ba ko te yàlla tax ngir yàlla mooy gën a màgg ci ñoom lépp lu mën a doon mbokk yàlla moomu mooy yàllay kenn ki nga xam ne mboolem ñi dund moom rek moo leen dundal ki nga xam ne mboolem ñi dee moo dogal seenug dee yàlla moomu mooy taxawe lépp du gëmmintu du nelaw mooy ki nga xam ne mooy aji bind ji loo gis ak loo gisul xamal ne moom dong moo ko bind ay mbiram lum ca namm danaan amal mu am mooy aji ki not lépp dara tewu ko ci liy xew ci kaw asamaan yeeg suuf dara ump ko mooy dégg lépp te mooy gis lépp yàlla moomu moo teg lépp ci xam-xamam lu nekk moo ko wàññi ak wàññi xatta yow doomu aadama ñaata nokki nga war a nokk ci kaw suuf yàlla wàññi na ko ba bind ko ñaata tibb nga war a tibb ñaata góoxi ndox nga war a góox lépp yàlla bind na ko ahsa kulla shay'in adada moom doomu moo fi des lépp day dem ba ko fi moo moom nguurug asamaan ak suuf mooy boroom ñi fi jiitu woon mooy boroom ñi fiy dund mooy boroom ñiy nar a ñëw yàlla moomu mbokk julit mooy ki ñu war a jagleel jaamu wuruñu caa boole kenn mooy ki ñu war a topp moom kese ak toppam wuruñu caa seet kenn mooy ki nga xam ne moom rek la ñu war a sant xéewal yi ci moom dong lu jege mooy ki nga xam ne moom dong la ñu war a woo keneen koo woo ku dul moom def nga bakkaar yim gën a bañ ci moom dong nga war a wikku mboolam ngay def ci kaw suuf da nga caa war a xool ngërëmam na doon ci sa njaboot la jëmam ci dëkkandoo yi la ci liggéey ba la lépp da nga caa war a xool ngërëmam sa xol bii nga toroxlu ko ñeel yàlla suñu borom mu ne ay yéen doomu aadama yi naka ngeen di weddee ca ngeen nekkoon dara man yàlla ma amal leen ca man maa leen di nar a rey gannaaw ba maa leen di dekkal dajal leen sama kanam ma yéen doomu aadama yi xanaa xamu leen ne maa leen bindal li nekk ci kaw suuf yëpp gannaaw ba man maa dem ko asamaan yi yemeel ko ci juróom-ñaari asamaan ci lépp lu ngeen nekkee man yàlla xam na suñu borom yàlla wëlbati ko mu ne ma yéen doomu aadama yi ñu ngeen di weddee yàlla mi nga xam ne moo leen bindal lépp lu nekk ci kaw suuf ngeen di ko wutal ay dendaale yàlla moom mi nga xam ne moo samp montagne yi yàlla mi nga xam ne moo dogal dund kaw suuf ku nekk la nga war a dund mu defal la ko ci yàlla moom nga xam ne moo jàkkaarloog asamaan ak suuf ne leen kaay leen déggal ma mu neex leen ak mu naqari leen ñoom ñépp ñu daal di ànd na ko borom bi atayna taa'iin ñi ngi lay dikkal di la jéggal jant bi ba mu ko joxee ndigal ba tey mooyu ko benn yoon ba mu joxee weer bi ndigal ba tey ma ngay dox ndigalu yàlla moyul bindi bindiw ya naka noonu ñan ñooy mooy seen borom mooy ñaar ñu dëgër bopp yi ak baqalaan muy nit ak jinne ngir réere ba nga xam ne réere nañ ko waaye mbokk jullit xam leen ni seen borom yàlla subhanahu wa taala moom dama muy aji woom la ji aji yeyoo cant yi keneen ku dul moom da koo soxlaal asamaan ak suuf moo ko téye antazuula moo téye biddiw ya ak lépp lu suuf gàddu yàlla moo ko téye mi ngi dépendre ci yàlla mbokk lu mu mën a doon képp koy yaakaar ci malaaka ci nit ci jinne ci yàlla la dépendre suñu borom mu ne ay yéen nit yéen ñëpp yéen a ngi aajowoo jëm ci yàlla yàlla muy aji woom la ci xamal ne aajo kenn du lu ko fajal kudul yàlla yàlla mu ne su ma neexee yóbbu leen indi ñeneen ca loolu day nekk na lu yomb ci man lool borom boobu subhanahu wa taala jox ñu ci ay misaal ci jaamam yoo xam ne nii sotti woon na ci ñoom ay xéewalam jaam yooyu nga xam ne nii boo leen seetloo ka nga xam ne nii ñoo ci jiiti woon mooy xaw ma nuux ñu dem ci kaw suuf ci xéewalu yàlla yi mujj daal di bew suñ borom yàlla daal di yebal ab jaamam na ñoom jaam boobu muy ndox mu jox jaamam asamaan na ko asamaan sottil jox jaamam suuf na ko suuf gëqal asamaan di sotti ndox suuf di gëq ndox ba taa ñoom ñépp ñu lakk suñu borom wax ak asamaan na ko asamaan aqli i asamaan arrêteel yaa daal di na ko yaa ard adli i maa ak suuf wannal sam ndox ñoom ñépp ñu déggal seen borom mais yow doomu aadama lan ngay représenté ci diggante asamaan ak suuf ba asamaan di déggal yàlla du ko moy suuf di déggal yàlla du ko moy yow tekki woo dara amoo dara doo dara ba pare ngay attana mburu ci kanamu yàlla bu yàlla tëralee ay luwaam yow it nga tëral say luwa bu yàlla joxe ay ndigalam yow it nga joxe say ndigal bu yàlla tere nga jéggal la yàlla tere mbokk lii da ngay gis ne yéemu mënte yéemu loolu gannaaw ba am na yeneen xeet yi fa jaaroon xawlu huuda na ne mbëru woon be woon yàlla yebal ab jaamam bu ñuy wax ngelaw mu ñëw faagaagal leen xawlu saalix yàlla yebal jaamam bu ñuy wax jibril mu yuuxu leen ñoom ñëpp ñu daal di al ko fan toll toll xaw ma luut ñu wëlbati seen dëkk ba ki ci mujjoon mbokk mooy firawna ak qaaruun firawna yàllaan ko booleeg géejam géej ga labal ko qaaruuna yàllaan ko booleeg suuf suuf ba labal ko firawna lab ci géej ga qaaruuna lab ca suuf sa lii lépp di wane ne ñoom ay jaami yàlla lañu yoo xam ne suñu borom la ñuy déggal ma yow doomu aadama looy def ba doo déggal sa borom. mbokk borom boobu subhanahu wa taala gis nañu ne képp koo xam ne yaa ngi am kenn koo koy booleel wala di ko jéem a lankal li la dal muy réer li la dal muy rëy li la dal muy ak woro waaye doomu aadama bu xam boromam doomu aadama bu rëyul dana xam ci yaqin na suñu borom yàlla amul morom laysa ka mislihi shay'un dana xam ne suñu borom nguuram nga dafa mat sëkk bu diglee kenn mu ci teg ba suñu borom yàlla moomeelam nga daa mat sëkk lu ko neex lay def ci nguuram ku fi am moo la jox ki ñàkk moo ko xañ ki am kattan moo ko kattanal ci néew doole moo ko nattu loolu moo tax ba xol yi war koo jéggal kanam yi war koo jattu dellu ci moom doomu aadama yi di ko war a tudd di ko bàkk fu ñu mën a toll mbokk lii da ngay gisee ne nii moom la suñu borom yàlla subhanahu wa taala teral ba tax yàlla moomu ku la ko gën a xam moo la ko gën a ragal ku la ko gën a xam moo la ko gën a topp mu war ci ñun ñu jéem a xool ñaari alquran yi mu wàcce ci ñun alquran bu njëkk bi mooy jawwam ji mu ñu tàllalal mu ne xam leen ne nekk na ci ni ma bind asamaani ak suuf nit bu dégg bëccëg di wutante ay kawteef ñeel ñi nga xam ne am nañu ay xel ñooñu di xalaat ci li nekk ci kaw asamaan di xalaat li nekk ci kaw suuf naan ay yàlla lii lay bindoo ko ci leen mbokk yàlla gisuñu ko waaye mboolem lim ñu won soo ca xoolee dañ ca gis màggaayam dañ ca gis xikmaam dañ ca gis yërmaandeem xataa sa doom ji nekk sa kanam nga di ko xool ñu ngi noonu da nga ci gis lan mooy kattanu borom bi jalla wa ala mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xamee ni nii wax nañu lenn ci ay mbindaa fanam muy malaaka yu tedd yu kawe yooyu nga xam ne yàlla doon nga xam seen dayo suñu borom nee na am na ñu ca am ñaari laaf am ñu ca am ñetti laaf am ñu am ñeenti laaf mu ne yazidu fil xalqi ma yacha mooy dollil ku ko neex suñu yonente alayhi salatu wasalaam ni kii di jibril day am na juróom benn téeméeri laaf ca laaf bu mu ci tàllal dana dem penku ba sow kii nga xam ne nii yonent bi alayhi salaam nee na yàlla jox na ma ndigal ma wax leen lenn ci malaaka yi gàddu arsh gàddu ko gàddu teraanga suñu yonent yi nee na diggante mbaggu benn malaaka ci ñoom ak nopp malaaka ba su doon tene doomu aadama daf da kay dox dana def juróom ñaari téeméeri at ca du ko jeexal diggante mbagg bi ak noppi bi kese loolu kon mbokk malaaka yooyu seen dayu yàlla ko xam et pourtant day suñu borom nee na ñoom duñu def lu dul yàlla digle dañoo ragal yàlla dañoo tar sax ca nañu ragale yàlla subhanahu wa taala mbokk yàlla moomu mooy ki nga xam ne mooy aji bind ji aji moom ji mooy ki nga xam ne nii yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doxale ne diggante jaamam yi benn kiiraay boo xam ne bu ko dindi woon léegi leeru kanamam ga dana lakk fépp foo xam ne bëtam yegg na fa te suñu borom yàlla bëtam yegg na fépp loolu moo tax ba la nga xam ne moom mooy réyaayam ba ak màggaayam ba xoolal asamaan yi ak suuf yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na mbindaafoon bu ñuy wax kursi moo tiim asamaan yi ak suuf suñu ko doon méngale ak asamaan ak suuf day mel ne yow mi demoon ci benn àll sànni fa benn jaaro ni jaaro bay réere ci àll ba noonu la asamaan yi ak suuf di réere ci biir kursi moo ne li ñuy wax arshu rahman noonu kursi ëppee asamaan yi ak suuf noonu la arsh ëppee kursi amma suñu borom ma nga ca ko war a chamba loolu tax mbokk jullit mu ne lii di asamaan yi suuf yëpp ak nëpp la koy def yowm alqiyama mu ne wa ma qadaru llaha xaqa qadri wal ardu jamian qabdatuhu yowm alqiyama wassamawatu matwiyatin bi yamini subhanahu wa taala amma yushrikun jaam yi day màggaluñu yàlla nañ ko waroon a màggale moo ndax ki nga xam ne lii nga xam ne mooy suufi asamaan yi da koy nëpp yowmal qiyaama yonent bi alayhi salaam mas na koy wax ci benn xutba bu Abdullah ibn Omar di nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na taxaw na ci kaw minbar bi mu ne yàlla day dana nëpp asamaan yi ak suuf yowmal qiyaama naan ana al malik ayna al muluk man maay buur bi ana ñu doon buur buur la ci kaw suuf yonent bi di ko répété ba nit ñi jàppoon ne baa du ànd ak minbar bi daanu ci suuf lii kon bokk kii mooy sa borom jalla wa ala bi nga xamee ne nii malaaka yi xam nañ ko day noonu lañ ko doon toroxlul noonu lañ ko doon nangule waaye yeneen ci yu tedd ya ak la nga xamee ne mooy jaam yu baax ya ba ñu xamee seen kattanu boroom ba ñu xamee peeg gam peeg mboolem lu ñu nekke loolu day yóbbu woon na leen tiit goo xam ne ànd na xemmem ñuy góorgóorlu ci ngërëmam di góorgóorlu di daw ay tereem di ko woo fuñ mën a toll ngir yaakaar ko di ko woo fuñ mën a toll ngir ragal ko nekkoon nañ ñoo xamee ne nii heure buñ leen fàttalee yàlla seen xol ya tiit ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana heure bu ñu déggee yàlla seen xol ya tiit ndax xam ngañ xamoon kan mooy yàlla heure boo xamee ne ni jàngoon nañ aayey borom ba loolu doon leen gëm loolu mbokk mooy yàqoon seen nelaw yu guddi ya ñu daan dagg seen i nelaw fa mu gën a neexe taxaw seen kanamu borom di ko bàkk di ko rukkool di ko sujuur suñu paree taxaw toog ci kanamam di jooy di ko jéggulu la nga xam ne mooy seen i bakkaar mbokk ñii ñooy ña xamoon seen borom jalla wa ala lii mooy mbir yi nga xam ne nii képp koo xamee ni nii xam na kii wallahi dana mooy ci di ko moy donte ne doomu aadama yi lu bari xamuñu lan mooy danger mooy yàlla ndax gis nañ ne ñi nga mooy yàlla dara dikkalu leen ca yéefar yaa ngi mooy yàlla di rey jaami yàlla yi dara dikkalu leen ci waaye mbokk jurit suñu borom mu ne loo loolu bum la war wala taxsabanna allaha gafilan amma yacmalu zalimun bul jàpp mu ko ne yàlla dafa sàggane li nga xam ne nii tooñkat yi ñi ngi koy def xamal ne ñu ngi leen di xaare bis boo xam ne nii buñ ñëwee xol yépp dana fa génn bët yépp dana fa buqeeku ca mooy la nga xam ne mooy yowmal qiyaama loolu moo tax dangal la waay sax leen ci màggal seen boroom sax leen ci jaamu seen boroom suñu boroom tëralal nañu ay askar yoo xam ne tudd diñ koy tudd di ko baril danañu fàttali kan mooy yàlla ca mbokk loolu mooy albaaqiyaatu saalihaat yow julit heure boo xëyee yaa ngi naan subhanallah ñaata yoon subhanallah mi ngi noonu da ngay gis ne ñaata yoon nga koy wax ci bis bu nekk subhanallah mooy sell ñeel na yàlla amul foo mën a takk ak màggaayam mooy ki mucc ci bépp ayib ki mucc ci kenn kuñ koy bokkaaleel waaye walhamdulillah yaa ngi yëg ne mbooli mi xiiwal yu nekk ci ñeel waa asamaan ak suuf ci yàlla rek la jóge allahu akbar yaa ngi gëm na yàlla gën a màgg lu mën a doon la nga xam ne mooy laa ilaha illa allah yaa ngi seetlu ne yàlla moomu kenn yoowul ñu koy jàmm ku dul moom la hawla wala quwwata illa billah yaa ngi gëm ne amul kenn ku am pexe du nit du jinne du malaaka amul kenn ku am kattan ci mën laa yóbbu ci lenn du nit du jinne du malaaka ku dul sa borom subhanahu wa taala lii mbokk mooy yóbbu jaam bi xam kii ba tax dana wattu la nga xam ne mooy boppam xool bët ya ko yàlla wërsëgal nopp ya ko yàlla may lammiñ ya ko yàlla may mu fexe ba tàggat ko ci lu neex kooku nga xam ne nii mi ngi koy saytu dara na ci ko te la muy def waaye mooy koy baril di juddu yàlla fu mu mën a toll mooy kiy baril di xalaat kañ laay dajeeg sama borom boobu borom boobu nga xam ne suñu borom nee na képp ku ragal bis ba ngay dajeeg ci moom ajjana mooy nekk sa wàccuwaay wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan mbokk lii mooy la nga xam ne ñoo jullit da ko war a bàyyi xel ñu bàyyi xel ne yàlla wàcce ne ci ñun ay waxam waxam jooju di téeréem bu tedd bi di ñu joxoñ li fi xewoon di ñu joxoñ li nar a ñëw di ñu wan màggaalu yàlla borom bi jox ñu ci ay ndigalam ak i tereem téere bi nga xam ne suñu borom nee na su ma ko wàcce woon ci montagne yi gën a màgg daan toroxlu ba tasaaroo ngir ragal gi ñu ragal yàlla ay yow doomu aadama bi nga xam ne yàpp ak deret nga lan moo tey ba alquran tasaare wu la muy seetar yi nekk ci xol yi waaye almuhim mbokk alquran war na nekk jaj ji ngoo xam ne dana la yóbbu ci nga wéetal sa boroom wéet yóbbu la ci nga nangul sa boroom waaye yóbbu la jaj ji la ci nga bañ a def la nga xamee ne nii moom mooy la mooy sa la mooy mooy sa boroom ay yéen doomu aadama yi yàlla moomu ci màggaayam ngal la waay bu leen yaakaar keneen ku dul moom xam leen ne yàlla moomu téye asamaan yeeg suuf mën na laa téye yàlla moomu nga xam ne moo aar asamaan ak suuf mën na laa aar bépp soxla boo xam ne am nga ko yàlla moom nga xam ne nii mooy wërsëgal baleen ya yàlla moom nga xam ne nii mooy jox ordre malaaka ya yàlla moom nga xam ne caabi asamaan ak suuf ci loxoom la nekk magasin asamaan ak suuf ci loxoom la nekk mooy ki woom ne soxlawul dara mooy borom njéggal ak borom yërmaande ngar la waay yooyu mi nga xam ne feebar dalaa sonal dellul sa borom moom rek mooy aji faj yow mi nga xam ne ak ñàkk dafa dal ci yow dellul sa borom moom da nga mooy aji woomle yow mi nga xam ne da ngaa nekk ci njàqare ka tiis dellul sa borom moom da nga mooy aji xettale ca sa borom boobu yemul ci jukka woo loolu waaye mi ngi woo jaam yi fu ñu mën a toll naan leen woo leen ma ma wuy leen wooy leen ma ma wuy leen képp ku réeréelu di woo keneen ku dul man dana doon ca ña nga xam ne nii yàlla subhanahu wa taala dana ko mbugal mbokk kon ñi ngi noonu ñi ngi ñaan suñu borom jalla wa ala yal nañu boole ci jaamam yaka màggal dëgg-dëgg màggaayam yal nañu boole ci ña koy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara yal nañu boole ci ña koy yaakaar duñ yaakaar keneen ku dul moom boole ñu ci ña ko ragal te duñ ragal keneen ku dul moom yal nañu boole ci ñi nangu ay ndigalam jëfe ko yal nañu na boole ci ñi nangu ay tereem ca moytu ko yal na yàlla defal ñu jàmm ci suñu dund yal na yàlla defal ñu jàmm bis bu ñuy dajeeg moom yal na yàlla wàcce jàmm ci suñu réew yal na ko wàcce ci mboolem réew yi jullit yi nga xam ne dañoo nekk ci ay guerre yal na yàlla indi naataange ak teraanga ci dëkk lislaam yi yal na yàlla delloo pexe yéefir yi ci seen kaw yal na yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu jannatul firdaws muy suñu daje wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain